al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéey liggéeyal lislaam salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara ji maa ngi nuyoo tey ziar di ko teg ci loxol sëriñ xaadim ak sëriñ xabaan yal na yàlla ñaan yëpp te yal na yàlla boole mbokk mi laaj nee kuy jëfandikoo al wirdul maxuut nee na ci ginnaaw takkusaan di ab jaaykat te waxtu woo fa muy jaay nee xat du mën a teewlu ndax dana ko mën a néegi ba wàcc te day wàcc ay boori fukki waxtu ci guddi yooyu ak ndax bu koy def boobaa day fay wala de waaw werdu bi day bi doon ginnaaw ngoon muxtaaram mi ngi tàmbalee bu takkusaan tàbbee ba gee tàbbi li tàmbalee gee ba njël loolu mooy daruri ji fii noo dina dugg njëkk diggante bu mooy daruri ji kon bu fekkee ne ngant am na ba mun koo def Euh, li gënoon nag mu def ko ci muxtaar bi moom diggante takkusaan ba gee loolu moom war na fee mën a am diggante boo xam ne da koy jaral nag sax nag di teel a wàcc euh, bu timis jotee mu wàcc ngir mën a dafir woo bokk balaa muxtaaram jeex su ngànt amee nag mu def ko ci daroolu yi bu njël jotee te def ko nag bu koy defaat day fay bu koy defaat day fay bu dee euh, yi ñu def ci suba gi it mi ngi tàmbalee ci sudusul axiir mooy itam foofu ñu noddee noddu ko njëkk foofu lay tàmbule ba jant fenk li tàmbalee jant ba zawal jot loolu mooy waxtu wiñ koy mooy daruri bu zawal xasee weesu nag dañ koy fay nga defate dañuy yéene fay wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne da ko doon dénk alal nee na lu toll ci ay weer ginnaaw mu seetlu ne alal di mat na nisaab waaye nag xamul kañ la man nisaab nee na mu wax ki ko ko dënk mu ne ko seetal rek noo koy defee mu laaj kooku fañ la fan la waxtu wan la war a génne asak euh, du nit ku ñu dénk la asak wara moom dañ ko dénk alal rek xëy na xamal ki ko dënk te yaakaar naa ki ko dénk xam na li mu ko dénk ñaata la moom aji dénkaane ji bis bi amee alal bu fekkee day commerce bis boobu bu siwaatee alal ji yokk ba mat nisaab asaka war na ci bu fekkee du commerce it bis ba mu dajalee ba mat nisaab moom miy dénkaane war na ko xam ndax saa bu joxee xam ne joxe nangam waxtu sàngam jox na la nangam kon bis bi matee nisaab bis boobu bu del siwaatee ci déwén sa te manqué wul nisaab asaka lay war daa waaye aji dénkaane ji la asaka war ndax mën na ko bañ a dénk lépp lam ko dénk lenn la ca waaye day boole li lim lim dénkaane ak lam yor lépp boole ko euh, xoo xam nu asaka jay toll mu génne asaka loolu kon du aji eh, ki ñu dënk la la la lijjanti mbirum asaka mi war mën naa fàttali ki ko dénk rek xamal ko ne bu dénk ma nangam euh, ngir laabiire ko waaye nag moom génne asaka ji waru ko wallahu taala alam mbokk mi laaj ne dafa am ku mu bëgganteel xëy na bokku ñëw xeet waaye ay waajuram ñoom gàntu muy laaj ba xam ndax su xëttee seen digal takku ko ndax loolu ci dogu mbokk dogu ñaari waajur lay dugg wala déet waaw takkum soxna de lislaam am na lu mu santaane ne ki muy takk mel noonu su sarto yooyu xasee day ci moom nag ci lislaam dagan na mu takk ko waaye nag bu fekkee ne ni ñuy dunde fii la nga xam ne soxna si moom da koy indi ci biir kër way juróom moom fexe bañ ànd ca mooy lëgën moom bu daganee ci moom ci lislaam te ñoom àndu ci it bu dikkee nekkeen wa mën naa bañ mel na gën kon ak sax wala ak yàgg yàgg mën na ca bañ a am te loolu du lu gën kon bu fekkee ne daal aggut ci ne bu ko tëkkut mën naa mooy yàlla agul foofu rek duñ ko wax mukk ne ko na na xëtt looy joroom takk su takk jigéen jooju feeg jigéen la joo xam ne bu ko takkee da koy indi ci seen biir kon fexe ba déggoog ñoom ci eh, ka mi takk rawatin nag bu fekkee ne la tax ñu gàntu ko am na fu mu tegu bu fekkee am na teg fu mu tegu boobaa moom day na war a déggal ndax takkum soxna ci buntu yu mel noonu lu ñu daga lu dagan la te topp ay waajur waajib la lu tax ñu lu lu illa ju tax ñu gàntu ko moom war na bàyyi xel illa jooju wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na dafa am boru ñaari weeri koor waaye nee na mënu koo fay nag ci koor muy laaj ba xam naka lay def wala wàcc ko bu fekkee ne amul wenn waxtu wum ko mën a fay ci ngànt la ko leboon te amul wenn waxtu wum ko a fay kon wàcc na ko ndax jëmi koor gi bu dikkee ki mënta woor ci genn anam koor da koy wàcc waaye kooku nag sopp nañ ci moom bu demee ba mënatuta woor bis bu set mu xëy lele ab mudd muy grammes ci ceeb kon xëy na bu wutee yu mel noonu cee weesu ngir saraxe ko ngir yàlla ba tey baax na waaye nekkul sax lu ko war lu ñu sopp rek la bu koor dikkatee nag te mënta woor bis bu xëyee na joxe ab mudd mooy 625 grammes ceeb saraxe ko waaye ginnaaw mënu ko ci benn waxtu ci waxtu yi kon wàcc na ko wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ñaanal ku fi jóge gan ñaan moo ci gën a gaaw waaw jàpp naa ne lii mat laaj mooy gan ñaan moo ëpp njariñ ñeel ku fi jóge loolu mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak njëgalam li gën ci lu ñuy ñaanal ko faatu mooy njëgalu yalla ak yërmandeem lépp lu baax lu ñuy def it ak ko yool ba àgg ci lu baax la mën ngaa aw ñam saraxe ko mën ngaa def lu baax yéene ko yool ba ak yu demee noonu waaye li gën ci luñ koy ñaanal dal mooy yërmaande yàlla ak njëgalam wallahu taala alam mbokk mi laaj ne ah, luy bismillahi rahmaani rahim yi luy atteem ci julli daa gis am ñu koy def ak ñu kootul def waaw ci ngirum imam malik mi ñu nekk day li ci not te lëng ci moo di ne jullik farata dañ cay sib bismillahi rahmaani rahim ak aoudu billahi min ashaytaani rajim waaye ci jullik naafili nag mën nañ ko cee def wuute googu nag day dellu ci bismillahi rahmaani rahim ndax ab aaya la ci fatiha wala wala du ci aaya dafa am ci waroom xam-xam yi ñu saxal ne aaya am ñu ne du aaya loolu sax bokk na ci li maaliki yi di lëngale ne du aaya ndax alxuraan lu ñuy wuute naan aaya la wala du aaya rek day wane ne ko nekku loolu bokk na ci li tax ñoom ñu ne lu wàcc la ñu di ko barkeeloo di ko tàmbalee waaye nag du aaya ci fatiha fatiha ñoom mi ngi tàmbalee alhamdulillahi rabbil alamin xayril maxdubi alayhim wala daalin mooy aay yu mujj moo tax ñoom dañuy wax ne jullik farata dañuy sib ku ko ci def eh, jullik naafila nag mën nañ ko cee def moom moog aawus billahi mina shaytaan rajim de yeneen ngër yi nag am na ci ñoo xam ne eh, dañ koy jàng ñoom dañuy wax ne dañ ko war a jàng ndax aaya la ci al ci fatiha moo ñu jàpp ne aaya la ci fatiha kon ci wuute yi nga xam ne yëpp yu dagan la am na benn benn ñu bokk ci ngërum Maalik it nag ñoo xam ne dañuy jàng bismillahi rahmaani rahim donte li not ci ngir mi moom mooy bismillahi rahmaani rahim julli farat dañ ko sib wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax doomi njaalo danañ ko rayal am xar ngénte ko waaw fi ñu santaanee rey am xar ci doom de doom yëpp lañ wax ku juddu rek lañ wax mawlud kon doomi njaalo nga ci biir xëy na li ma laaj ke mooy kan la tuddoom war ginnaaw amul bàyyi ci sharia kon yaayam lay war ndax moom ci yaayam lañ koy askan doomu Diallo ci yaayam lañ ko askan kon yaayam lañu sant su ko mënee mu wutal ko ab gàtt euh, raye ko ci bisu juróom-ñaareelam su ko amul nag bu juddoo ñu mu tudd ñu tudd ko wallahu taala alam mbokk mi laaj ne na ku yàlla na tumaam wayjur wu naqari dara den jikkoo la war a woo ba duñ juyoo na mën a muñ ak mën a dékku ak xam ne am natt bul la yàlla teg la nga tegoo ko te boo ko rafetalee muñ ko muñ ko rafet yàlla fay li ci aw yiw wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na kuy kafaara nee na kalkin juróom benn fukki nit ñi bis bu set mu génne leen téeméer mi laaj ba xam na xam loolu dana ko mën ak it ndax mën na ko jox kuy faju kafaara bu dee da ngay lele aw ñam la war a doon sañuy su ko joxe xaalis maanaam mudd lay jox juróom benn fukki nit lim bi faw day mat juróom benn fukki miskin lañu wax miskin bi nag bu fekkee ne daa tasanteeg muy faju waaye dañ koo jox daal ngir ne miskin la waaye joxuñ ko ngir ne day faju doon gi mu doon miskiin moo tax ñu di ko jox juróom benn fukk la ci a wut kenn ku ne mu jox la am mudd mooy 625 grammes ci ceeb wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax nit ki dundal gi muy dundal njabootam ak di leen faj bu ëppee ndax dana ci am tuyaaba donte lu ko war la waaw dana ci am tuyaaba bu baax bu ko defee ngir yàlla ñëw na ci ay xadis di saxal loolu salaam nee na ab diinaar boo joxe ci yoonu yàlla ak dinaar boo joxe ci goreel jaam dinaar boo sarax ab miskin ak dinaar boo dundal sa njaboot nee na yëpp baax na waaye bi ci ëpp tuyaaba mooy bi nga bi nga dundal ci sa bi dundale sa njaboot kon ne mel ne lu baax nga def sax daf ko sa njaboot moo ci gën am na beneen xadis boo xam ne it yudal islaam wax ne eh, doo dundule benn dundu di ca sàkku jëmi yàlla lu dul dinañ la ci bindal tuyaaba ba ci li ngay def ci gémmiñu sa soxna warteef fii la war sax ci sa njaboot boo ko defee tey ixlaas lal ko dang cee am tiyaaba it wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne du julli waxtu yu juróom ndax bu faatoo waris na ko jullee ak ndax waris na ko defal li ñuy defal jullit ñi waaw bu fekkee ne ñàkk julli ga sàggante la ak sàggante moo ko waral mu benn ngant waaye daa sàggan waaye xam na ne julli war na ko suba ab jullit la bu faatu kooku sax la ci waroon ci lislaam mooy dañ ko war a rey waaye buñ ko reyee it ab jullit lañu rey dinañ ko defal li ñuy defal jullit ñëpp sangu ko sangu ko jullee ko suul ko ci biir jullit ñi ndax ab jullit bu yoon rey la bu waa amma bu dee koo xam ne daa weddi julli ni du weddi ni julli du dara julli amut du dara kooku moom yéefar la kooku dañ ko war a rey waaye buñ koy rey ab yéefar la ñuy rey moo tax buñ ko rey ba noppi deesu ko defal la defal jullit ñi dañ koy sànni ci àll ba gas ndox suul rek kenn du ko jullee kenn du ko sang kenn du ko defal dara deesu ko suulit ci armeelu jullit wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na luy atteb lislaam ci jaarop aqiq bi ñu digal góor di ko takk nee na mu def ca biir ab téere du jaarop aqiq la ñu digal góor mu di ko takk góor jaarop xaalis benn jaarop xaalis lañ ko digal mu di ko takk boo xam ne du ëpp juróom benn gram benn jaarub xaalis jaaroo nag day am lu ñuy wax fas mooy li na ci kaw loolu nag lay doon léeg-léeg aqiq léeg-léeg mu doon leneen lu dul aqiq aqiq nag dañoo wax ne ah, fas bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na doon a aqiq am na ci ay ahadis yu ko wax kon jaaro boobu la ñu digle eh, jaarub xaalis la jaarub xaalis nag aqi eh, fas soom lii ne ci kaw mën naa doon aqiq waaye du ne jaaro boo xam ne aqiq lañ ko defaree am amma def ci ab téere ci biir nag dañuy xool téere ba la ci nekk bu fekkee alquran la ak ñaan gu xam la dara nekku ci ndax li gën a lëng waxee mooy dagan na takk alquran waaye nag bu baax ki ko yor na moytu di ko dugal ci wanag wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na am na dëkk boo xam ne ay jabar dañ faa nekk ay nit di fa dem di fa jabarlu nee nag boo dikkee ci bunt dëkk ba nag dafa am ay oto yu fa nekk di yóbbu nit ñi muy laaj ndax oto yooyu di yóbbu nit ñi luy seen atteewum ci lislaam bu leeree na ñoo fay dem dañuy njabarlu ji ñooñu dimbalante ñoom ci bàkkaar la ndax boo leen fa yóbboo jàppale nga leen ci lu xaraam li ñuy def yombalal nga leen ko loolu lislaam da koy tere kon du dagan mukk ku la leer ne fa jëm lam fay def ak mooy yàlla la lu yàlla tere la nga di ko ci jàppale ci yóbbu ko fa wala tegtal ko fa wala def ca dimbale ko ci lenn rek luy tax mu mën fa àgg loolu du dagan ci ab jullit wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax góor sañ naa takk soxna su ko mat yaay nim sañ a jigéen ju ko ju ko baay waaw ci ay adde waxuñ fenn ne jigéen bu tolloo sàngam góor toll sàngam bu mu ko takkati mel na ne wuuteeg at yi moom euh, amut fuñ koy tanee wala fuñ ko yemale kon nit mën naa takk ku ko mat doom waaye mën naa tak ko xam ne ci at mage na ko loo xam ne war naa mën a am doom ju tol xëy na loolu njub wax ku mat yaay loolu mën naa nekk ci lislaam wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ñi nga xam ne dañoo am ay xambu di fa dem difa fa ay nàkk ak ay demee noonu nu ko lislaam gise loolu lislaam da koy tere lislaam day tere ndax loolu dafa nuru lool jaamu xiram ñooñu ñuy dem di leen gërëmloo ñaare ay saytaane la ñu doon ak yu mel noonu ñooy ñooy ne ci yooyu di leen sant ñu leen defal yooyu moo tax ci lislaam yooyu yëpp lu ñuy tere la jullit da ko war a moytu wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na sangu farata ndax yéene ji dana doy waaye wala faw nga toftale ko niñ ko war a toftale waaw da ci am loo xam ne mooy farata bu mënta ñàkk mooy yéene ji nga yéene dindi toj mu mag mi ak matale gi ngay matale yaram yépp nga tooyal ko ba noppi bomb fépp foo mën a bomb te lépp nga defandoo ko ci benn yoon loolu moo ci farata amma dafin wi nag jiital tàmbalee raxas loxo xubbiku eh, jàpp-jàpp benn benn topp ko noonu ba mu àgg loolu lu ñu sopp la dafin woo dañ koo sopp waaye koo xam ne fexe nga ba lépp tooy fexe nga ba bomb fépp yéene nga te lépp benn yoon ko def rek boo génnee laab na wallahu taala alam mbokk mi laaj luy àtteeb ñi nga xam ne dañuy luyee seeni kayit jox ko keneen kooka di ci liggéey di leen fay bu fekkee ne luyee kayit mooy nit ki jël aw kayitam ki mu doon aw turam yëpp jox ko keneen kooko doon ko moom nga xam ne fa mu dem dafa liggéey day wax ne maay boroom kayit yi nii laa tudd nii laa mel la ci nekk ci man moom laa man te fekk du kooka subaa loolu daganut moom ndax loolu lëntal la wax lu amut la te ab julit du lëntal du wax lu amut wuti mu ñaaw la it nag ndax bëgg loo am tax nga ngay wax lu amut daa bokkoon ci li yuntu islam tere woon wax ne na ngeen bàyyi xel yàlla te rafetal euh, li ngeen di sàkku lu ngeen di sàkku ko sàkku ci rafet rafet leen ca kon julit du lëntal ngir bëgg lu am wallahu taala alam mbokk mi laaj koo xam ne dañ ko wakkiloon di ko mayeloo ku tudd astu nee na mu juum maye ku tudd penda bi ñuy maye daal penda la tudd muy laaj àtte ah, sëy boobu ci lislaam bu fekkee ne penda la tudd waaye daal jàpp ne ki ñuy maye loolu jeexital ci sëy ba maanaam juum ci ne daal ki muy moom kii la xàmmee na ko waaye tur wala jaawale nga ne moom euh, ka tudd astu la jublu woon a waaye da ko wooye tur wudul aw turam loolu amu ci jeexit du tee sëy bi dana baax amma bu fekkee nag daa tànn maye xam xamee na leen waaye jëm mi pend la maye su waaw nag pend lañ maye su fekkee ne du moom lañ bëggoon maye dañ koy dindi maye kañ bëgg maye waaye fekkee dañoo juum rek tudd tur yi waaye kiñ bëggoon a maye lañ maye waaye dañ ko woyee tur wutlaw turam loolu dara nekku ci lañ fas mooy mooy wéy wallahu taala alam mbokk mi laaj ne daa gis ne boroom xam-xam jamono ji dañuy nattale gën jaa néewi can ci rubon dinaar rek gis nag ne ndax waruñu woon a xoolit rubu ordinaire bi lam lañ ca mënoon am ci ay bagages xam naa ñi ñi wax ne rubon dinaar mooy gën jaa néewi cen loolu yàgg la ci bu Malik ñi nga xam ne dañuy wax ne cen am na gën jaa néew ci masab bi ñoom dañuy wax loolu dañ gën cen gën jaa bari amut lim waaye gën jaa néew am na fu mu yem mooy rubon dinaar wala ñetti dërëm jamono jooje nag ñetti dërëm ak rubu dinaar seen xiima ñoo tolloo woon ndax booba benn dinaar ak fukki dërëm lay tolloo booba tax ñu doon wax naan ku am ñaar téeméeri eh, dërëm wala nga am ñaar fukki dinaar am nga nisaab dañoo dem ba jëmmi jamono nag jëmmi xaalis moom ñàkk xiima xiima jëm amoon amatu ko nam tolloo woon a or or moo dafa téye xiimam ba tey boobu ñu ne wax naa la ñetti dërëm ak benn ak fukki euh, fukki dërëm ak benn dinaar ñoo tollawoon léegi mën ngaa am lu ma téeméeri dërëm du benn dinaar kon seen seen seen xiima rawante na lool loolu moo tax borom xam yu bari di sukkandiku ci or wax na ci lañuy ñuy xool nisaab ci la ñuy xool euh, ak kenn rubon nag boobu nag barab boo nekk bu ne kon lom fa doon ci xaalis booba loolu mooy nekk aqalu sadaax wallahu taala alam